mbokk internet Laye Roby l'international maa ngi leen nuyu leen naan daal leen ak jàmm combat bu bu ñu ci communiqué bi validation candidature Ousmane Sonko si bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ñu mel ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo di jege ñaala ak Farandor Bassirou Diomaye Faye ñoom nee nañ gis ñu lenn li nga xamante rek mën nañu tere Ousmane Sonko mu daal di doon candidat si jongante élection présidentielle bu février 2024 ndaxte am na yeneen candidat yu nga xamante moom moo seen euh, parrainage te ki nga xamante moom moo di Ousmane Sonko ni ci conseil euh, constitutionnel ñoom ñu jàpp ne rek ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom moo di euh, jafe-jafe yi nga xamante ne moom la Bassirou Diomaye Faye daal di euh, nemmeeku moom moo di vérification bi ndaxte moom Bassirou Diomaye Faye ci fàttali dañ ko daal di rëkkale ci première fois bu ñu doon amal li nga moo di vérification bu jëm ci wàllum li nga xamante ne moo di euh, parrainage bu ñu amalee ñaareel vérification bi ci di mujjee valide li ba tax communiqué daal di koy génne fësal ne kii nga xamante ne Sonko war na bokk si jongante élection présidentielle bu février 2024 dañoo war ubbi yaatal li nga xamante ne moom moo di candidature defee rek Sénégal daal di tànn ki nga xamante moom la ñu namm wala kooku lañ bëgg pour mu daal di leen jiite si jongante élection présidentielle bu février 2024 mbokk yi

Ousmane Sonko bi nga xamante ne euh, doon na benn mbir bi nga xamante euh, euh, na rek kii di ko ci xibaar nañ dellusiwaat fii nii yekkee leen ko incha naan bu leen fàttee ngir gunge ñu moom la ñuy def ma leen di jox dig daje si yeneen jotaay xibaar incha allah ci Laye Roby l'international